wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi noo ngi sant yàlla sunu boroom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 baatub assalaam ngay tàmbalee asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu ne la waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu loolu lépp day wane ne lislaam jàmm moo ko tax a jóg booy julli sax ba àgg ci taaya dangay ñaanal jàmm yonent bi nga xam ne moo indi julli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 محمد رسول أشهد أن محمد رسول

le soleil أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kon moom ku baax ki jàmm rekk la doon wax moom la doon jëf moo tax mu naan wa bi jaddidi sabil bila idan aw alami moo tax mu naan biix di iyaali bila bukaa'i ñu koy tooñ te fayiwul ñu koy génne mu jéggale zalamtumul abda alladi laa yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim axrajtumuhu min diyaarihi bila xaqin wa jahada wa qaasaahu lbila li wajhi man anhu afa ankum afa kon moom loolu moo doon aw doxiinam musta xuloo musta musta xeex musta xeexlu ndax bëgg jàmm jàmm nag yàlla def na ko ci réew mi ndax kilifa yi ñoo ko sabablu ñoo ko sàkku ñoo ko liggéey waaye jàmm dañ koy suuxat bokk na ci liy xajamal jàmm nag mooy tooñ yàlla bëggul tooñ ndax moo ne yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tadaalamu yéen sama jàmm ñi araamal naa tooñ ci sama bopp araamal ko ci seen diggante kon bu leen tooñante ku ñu tooñ nag soo mënee jéggale nga jéggale soo munta jéggale nga fayu kem nañ la tooñe wa jazaau sayiatin sayiatum misluha fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah cheikh saalihu mbàkke radiallahu anhu daana wax ne bokk na ci li ku gën a metti mooy dafa bari ci biir yoon wi loo xam ne bokkul ci yoon wi te loolu ku xam-xàmmee xam nga ko waaye am na ñoo xam ne du ñu yendal du ñu fanaanal ngir saafara ko moo tax suñu kilifa yi di wax di digle di tere di yeete ndax bëgg rekk njaboot gi tënku ci li nga xam ne mooy santaane yi sëriñ bu mag bi doomu aadama nag mën nga koo tooñ ci alalam wala njabootam wala deram wala wayjuram bu dem pànk du ko muñ waaye bu dee muñkat mën na koo muñ waaye ki nga xam ne pànk la amaana mu fayu yam ca nañu ko tooñe waaye amaana buy fayu mu ëpp te su ëppee nag wolof yi nee na wolof xamul ku fayu ku xamul ku tooñ ku fayu la xam bokk na ci tooñ yi nga xam ne day diis nag ci nit ki mooy nga tooñ ko ci pas-pasam am na ay safaan yoo xam ne bu ñu ko jëmalee ci sa kilifa boo dajeeg benn taalibi bu ko mën a dékku nanga xam ne am na téeméeri junniy taalibi yoo xam ne duñ ko mën a dékku te safaan yooyu ay gone yu ndaw yoo xam ne seenu njàng demul fenn seenu ko ràññee demul fenn ñoo koy yëkkati di ko jëme ci Cheikhuna Ahmadul Xadim te la ca ëpp day nekk ay masail xilaafiya loo xam ne boroom xam-xam yi ñii dañoo wax lii ñii wax lee yow na nga ne la ma wax rek moo wér bokk na ci loola tawassul maanaam yallaahu bil Moustapha Sindiid yallaahu ñu ne la loolu kenn du ko wax jàng xasida ñu ne xasida kenn waru koo jàng ndax xadis moo gën lépp te kenn du ko jàng te xasida mooy sant yàlla tudd yàlla sabal yàlla bàkk yàlla ñaan yàlla jiglu yàlla julli ci yonent bi ñaan luy defar àdduna ak àllaaxira ñaan yoo xam ne bu buñ la bàyyee woon ak sa bopp sam xel du ko mën a rabb xam nga ne wajaal midaadi fawqa kulli maa i barakatan ka matari samaa i buñ la bàyyee woon sam xel doo ko mën a wax boo ziyaaree barab ñu ne la kenn waru koo def boo jullee ci jumaa ji ñu ne la kenn waru koo def boo joxee hadiya wala ñu laaj la ko ñu ne kenn waru koo laaj kenn waru koo joxe te keroog xareb xaybar ku tedd ka dafa laajte usmaan joxe téeméeri giléem dollewaat téeméeri giléem dollewaat téeméeri giléem keroog la ko mbaay yàlla ni ma darra Ousmaanu ma faala baada haadihi Ousmane lu weesu tey mbaay yàlla nañu ko lu ko neex na ko def bu ñu wootee ca tool ya mbooloo ma dem nga ne loolu kenn du ko def dafa araam te kilifa goo xam ne la muy fàggu da koy defaat ci jaame yàlla yi day jaamu yàlla ci jaame yàlla yi boo toogee fi suuf nit toog ci kaw ñu ne loolu dafa araam boo fóonee loxo ñu ne sujjóot yàlla ko moom boo gàmmoo ñu ne bidaa boo màggalee ñu ne bidaa la boo jébbaloo te mooy jaayante rek ci ndax ci yàlla la ñuy jébbalu wajjahtu wajhi li rabbin jàlla an ak jàlla an waladin kon ci yàlla la ñuy jébbulu waaye nag dangay ngay jaayanteeg ab jaamam bu bu mu gërëm mu lay teyte ci yoonu yàlla boo fóonee loxo ñu ne danga ngaa sujjóot te yàllaa ko moom yu mel noonu nag buñ ko dee yëkkati sëriñ bi bi sunu kilifa jàmm rek lay woote jàmm rek lay santaane waaye ki mën a def jàmm mooy taalibe bi nga xam ne dafa ànd ak xelam buñ ko déggalee mu jëf buñ ko teree mu bàyyi waaye ki xas tàggoog sagoom dootu dégg ndigal dootu bàyyi tere moo tax mu mot teey moo tax ndaw yiy wax te xamuñu xàmmewuñu na leen seen kilifa di artu nguur gi ŋànk réew mi tam na artu na artu ñii tooñ ndax am na réew yoo xam ne tàkk na te la ko taal moo yées lii kon ñoom ñi nga xam ne ñoo mën a artu bala ñoo àtte nañu artu wolof day wax ne diw day mën naa dëkk ak jaan ci biir pax loolu lu muy firi mooy dafa jàppu njàmburam ndax jaan loo ko jege-jege te jàpp sa njàmbur du la laal man nga dëkk ak ab yahut di maslaak moom su amee ngénte nga dem su amee céet nga dem su amee dëj nga jaale ko tam téye pas-pasam nga téye sa pas-pas ab nasaraan mën ngaa dëkk ak moom am moom jàmm bu xewlee nga dem boo xewlee mu ñëw tam téye pas-pasam nga téye sa pas-pas jaamukatu xërëm sax man ngaa am ak moom maslaa bu amee ngénte wax la ko nga dem lum xewle nga teew boo xewlee mu teew tam téye pas-pasam nga téye sa pas-pas gannaaw ñooñu nga war a mën a maslaal te ñu téye seeni pas-pas waxuma la nag ab jullit kon jullit bi nga xam ne mooy sa mbokk moom nga war a gën a mën a maslaal mu téye pas-pasam nga téye sa pas-pas te itam képp ku bëgg yaatal lislaam am na ci réew mi ay ruq ak i ruqaan yoo xam ne lislaam daanaka dafa tumuranke ba fii mu ne Sénégal am na ruq yoo xam ne dañuy jaamu xërëm am na ci Sénégal am na ñoo xam ne xamuñu dara ci lislaam kon ku bëgg yaatal lislaam foofa dañ ko faa soxlaa lool waaye fi xas nooy nepp ku fi ñëw ni dangay yaatal lislaam di tooñ nag nit ñi ci seeni pas-pas su demee ba ëppi loxo doo ci mucc kon nañu delloo ci xel yi nañu xam ne njabootug Cheikhul Khadim gi dañoo tënku ci ñetti ponk muy at tasawufu sunniyul xaalis kenn mënut dox seen diggante ak moom dañoo tënku ci al aqida kenn mënut dox seen diggante ak moom dañoo tënku ci ngirum imaam Malik kenn mënu leen koo xañ ku tënku ci leneen nag mën nga caa tënku di maslaak ñoom ca la nga séq ak ñoom ñoom itam ñuy maslaak yow ca lañ séq ak yow te kenn ku ne téye pas-pasam ndax xërëm ku ne xam na ne lépp ko tane te jaamukatu xërëm yi sunu borom dafa waxoon ci alquran ne ñiy jaamu leneen lu dul yàlla bu leen ŋàññi seeni xërëm ndax kon ngeen tooñ leen te su ngeen ŋàññee seeni xërëm ñu wëlbatiku ŋàññ ma man yàlla wala tasubbu alladina yad'uuna min dunillah fa yasubbu llaha adoom bi gayri ilm kon nanu xam ne sunu kilifa moom jàmm rekk la bëgg moom la woote waaye nag nañ ko rus ci bëgg la ko jàmm ana nu ñu koy ruse ci wut la ko jàmm mooy bu ñu tooñ njabootam ndax njaboot gi boo leen tooñee ña amul sago dootu ñu déglu ndigal dootu ñu bàyyi tere su boobaa réew mi dana tàkk te bu tàkkee kenn du ko jariñoo yàlla na yàlla sàmmal na sunu kilifa gi yàggal ko ci sunu kanam te lépp lu mu sumb yàlla na ko yeggale te su koy yeggale yàlla nañu ko ànd ak moom yàlla na yàlla tasaare jàmm fii ci senegal sëriñ Abdul Ahad waxoon na ne jàmm rekk fi xew la waxoon nag du taxu kon loolu rek kay am bu soobee yàlla wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام الحمد لله الذي جعل هذه الصلوات لمبنى الإسلام ركنا مسيبا وأودع فيها من أسرار المناجاة ما يجد حلاوته من أراد به رشدا نحمده تعالى ونشكره حمد وشكر من لإقامة لإقامة قواعد قواعد الإسلام هداه نسأله أن يجعلنا ممن انقاد لأقوال مولانا رسول الله واتبع هداه صلى الله عليه وسلم وعلى آله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 فأعظم بها من عبادة يناجي العبد فيها مولاه وناهيك بها من طاعة تكفر ما تخلل بينها وبين أختها من ذنوب العبد وخطاياه فأقيموها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 الحمد لله الذي أوضح معالم الدين وأنجح مقاصد المسترشدين ومنح هداية أصفيائه المتقين وأسرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له shahaadatan najdu barakataha yowma yajmacu alawalina walaaxirin wa nusalli wa nusallimu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salaatan wa salaaman nakunu bihima yowma alfazaci lakbari min allaminin amma bacdu fa yaa ayuha annaas inna allaha taala qad xazumat minanuhu alayna id baasa asrafa rusulihi ilayna wa jaa min al ayaati almuxkamaat wal ahadith saxaahi albayinaat ما أوضح لنا السبيل وأبان به لكل عاقل نبيل أن الدنيا وما فيها خيال وسراب وأن ما فوق التراب تراب وأن الآخرة هي دار القرار وتوجهوا عباد الله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 yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimiin amiin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 والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى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 هبنا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 أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين نامية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني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 الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.